positif bi yéen a ngi gis noonu collecteur euh, prison bi mu ngi euh, mu ngi noonu euh, prison de Sébikotane fii nga xamante ne la ñu daal di indi Ousmane Sonko am na si dispositif bu ñu fi fekk mu nekk dispositif bu sécuritaire boo xamante ni la gendarmerie nationale moo ko daal di assuré waxtu wi ñuy wax ak yéen. ñu ngi si euh, collecture bi si alentour yi nag la ñu nekk ñu rekk daal di wër li nga xam rek moom moo di alors kaso bu Sébi Kotaan bi euh, yéen a ngi gis noonu collecture bi gis aussi mbedd yi euh, fi ñu jugee tout à gis nañ ci daanaka quatre auto gendarme au total ak ay éléments gendarme yoo xamante ni ñoo fi nekk donc ñi toog si alentour yi voilà pénitentiaire yi aussi garde chef voilà pénitentiaires yi aussi ñu ngi noonu ñoom tamit euh, rek daal di euh, taxaw si alentour yi ngir rek mën a superviser fii nag si àll bi la nekk voilà dafa wàcc carrément euh, si li nga xam rek moom mooy si euh, tali bi dañu fas yéene rek euh, daal di continuer ba ba tey alors si fàttali ni yéen ngi ànd ak ñun en direct jamono ji si donc prison alors bu see bi Kotaan fii nga xamante ni nag ba tey donc mu ngi noonu euh, ginnaaw nag euh, bi ñu jugee euh, fële sa diwaanu alors diwaanu Ponti Sébikotane foofe nga xamante ni moom mooy prison bu Sébikotane ñu fas yéene rek daal di leen defal point de situation ndax xam ngeen ne c'est un peu compliqué foofee nga xam ne aussi lañ fa rek daal di gis ak lañ fa nemmeeku mooy. situation bu mucc ay boo xamante ni sax euh, takk der yi maanaam gendarme yi euh, fépp foo romb rek ñu ngi taxaw waaye tamit euh, garde pénitentiaire yi ñoom tamit ñu ngi fa rek daal di taxaw amul visite boo xamante ni fekk nañ ko fa waxtu wi moo xam si alentour yi waaye tamit ab rassemblement boo xamante ni moo xam si ñu fas yéene faa ñëw rek pour amal fa seeni manifester wala regroupé wu fa. donc loolu mooy bile information maanaam euh, dispositif euh, sécuritaire bu mucc ay boo xamante ni moo xam ay auto gendarme lu toll ci cinq au maximum oto euh, gendarme yoo xamante ni ñu ngi taxaw nag si euh, entrée euh, prison bi waaye tamit si porte bi ak alentour yi am na si ay éléments yoo xamante ni aussi si ay takk der ñoom tamit ñu ngi fa positionné wu daal di fay taxaw ngir rek mën a caytuwaat dugg si ak génn si bi waaye tamit lépp lu foo xamante ni dafay circuler loolu mooy situation bi nag euh, bi nga xamante ni moom lañ leen doon defal alors si euh, fii si alentour euh, Sébi Kotaan rawatina nag si kaso bu Sébi Kotaan bi donc voilà mu ngi noonu ñu fas yéene rek daal di defaat suñu demi tour pour xool situation dëkk bi naka la fa tëddee loolu yëpp pour mu leen a jox information en temps réel fii si Sénégal 7 TV waaye itamit si Sénégal 7 point comme ngeen ànd ak ñun. Euh, ngir rek euh, ñu fas yéene leen daal di wan euh, ana lan mooy xew waxtu yi fii ci Sébikotane waaye tamit lan mooy dispositif yi ak ginnaaw rawale bi nga xamante ni daal ñu koy xibaar ndiki rek démb ci altine ji ginnaaw moom Ousmane Sonko nag la ñu fii rek daal di indi. loole nag mooy information bi ñu mujjee am di ki démb en ñuy xool ba xam ndax fan lay mujjee si rek la suite de son arrestation ak euh, niñ ko rek daal di emprisonné euh, fii si euh, Sébi Kotaan mais nag beneen jàngat bi mooy gisuñ nag dara loo xamante ni wàllum dispositif sécuritaire la euh, moo xam si yenn diwaane si Sébikotane si tali bi aussi nemmeekuñ fi dara loo xamante ni mbirum blocus la gisuñ fi ndaw bu ñëw fii di manifester gisuñ fi aussi euh, policier monté wala gendarmerie monté euh, si li nga xam te rek moom moo di alors si yoon bi ba keroog ñuy àgg fële nga xamante ni moom mooy si diwaanu Sébikotane maanaam si prison bu Sébikotane donc yéen a ngi gis yoon bi yëpp dafa libre Euh, amul dara loo xamante ni nduru nag luy perturber wàllum circulation bi xanaa bu ñu ñëwaatee rek euh, un peu si rappel yi nga xamante ni euh, ñu defal leen ko rek si lu xewoon si cité kër góor gi ginnaaw moom Ousmane Sonko nag bi muy jugee si juma ba noppi wax ne benn ndaw. su jigéen moo ko doon euh, photo teg si di ko filme euh, mu daal di koy jàpp rek ne faaw mu tijji téléphone bi pour mën a supprimer euh, effacer li nga xam rek mooy lam ko doon filmer wala lam ko doon photo ni ni mel nag daanaka sax moo déclenché li nga xam rek moom mooy coow li ni ni nag bi si gendarmerie jotee si la ñu rek daal di gisee ab benn bataaxal boo xamante ni moom leader bu Pastef bi daal na koy bind si page Facebook am bi di wax na sax ne euh, nañu taxaw teem rek ngir euh, rek daal di euh, donc mu ngi noonu tout sax am na si lu toll si ñeenti oto yoo xamante ni donc yu blanc la ay marque la donc romb nañu tout à l'heure mel ni nag luy wutari ji fële sa alors parce que voie bi mooy voie bi nga xamante ni suñu am mooy dem directement si kaso bu Sébikotane ginnaaw bi ñu defee suñu demi tour ba noppi mais jàpp leen ne euh, lii mooy jàngat bi nga xamante ni euh, doon nañ leen ko doon defal alors euh, tout à fi nga xamante ni mbokk yi moom mooy fii si diwaanu Sébi Kotaan ñu nag continuer si tali bi xool ba xam aussi ndax foofee circulation bi amul blocus ndax amul benn jafe-jafe si dem beeg dikk bi ndax xam ngeen ne si yile ay manifestation depuis barki démb ba léegi mu ngi doon am si yenn diwaan rek rawatina si Pikine euh, VDN bi si diwaanu Ndakaaru euh, gis nañ aussi jotoon na am euh, perturbation ndax am na si ay xibaar yoo xamante ni ñu ngi ko daal di dégg fële sa diwaanu Ziguinchor ne am na si ñaari ndaw yu si jot faatu loole nag dinañ ko jot rek gëstuwaat bu baax a baax ndax si am na ay xibaar yoo xamante ni sax si suñu naataangoo yi ñoom ñoo ko jot rek daal di fësal donc tali bi aussi amul dara loo xamante ni mu ngi rek daal di perturbé wu malgré. Euh, fii si Sébikotane bi bi ñu jugee euh, donc